Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité la cloche de notification. voilà mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen sant di leen wax ni euh, ñu ngi unité 19 kër Papa Sow gannaaw biñ ko seetsee mu def benn doom bu ama am solo léegi ci école 19 euh, bi mu nekk euh, doom bu ama am solo mu gis proviseur bi ñu daal di def ñu nit jàpp ci li nga xamante ne moom mooy xeex contre Covid 19 bi ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokk téléspectateurs yi ñu doog a yaatal salaamaaleykum papa. waaleykum salaam Cheikh Omar ñu lay ziar di nuyu mbokk internet yëpp di nuyu waa Lutte ah, ñëpp quoi. voilà euh, ñu gis ni def ngeen benn doom bu am am solo mën nga ñu cee dellu si waat. waaw di jaajëfal ñëpp encore rek di wax ni bon ku xam ne àdduna rek tey toll nañ ci euh, lu doy waar muy Covid 19 bi. ba tax na kenn ku nekk rek mu ngi sa participation ci ni ko mënee. ndax bu doon euh, ay euh, gel alcoolique moom Covid ou pas école di nga ko war a utiliser. utiliser bu dugg si école ci classe yu ko war a utiliser wax dëgg yàlla lu baax la waxoon nañ leen ko après bi euh, état changé at AVM moo taxoon après bon ñu puusaat ko mais comme que jàppoon nañ ko rek dañ koy def quoi def nañ ko wax dëgg yàlla. alors ñu gis ni aussi mbër yi l' association en activité defoon nañu benn don bu mag mais parallèlement yow nga defaat loo xamante ne sa gox la. waaw loolu rafet la loolu lu ñuy saluer la mbir yëpp dajaloo pour def benn affaire loolu rafet la lu ñuy saluer la di wax ni rek tamit ku mën tamit gën a def rek ndax affaire du doy affaire du doy koo xamante ni daal war nga mën a def daal geste rek defal ndax du doy quoi. jàq yi sa waa koñ ak xale yi koñ yeeg ñëpp loo mën a def rek pour rek sensibiliser nit ñi rek defal. waaw xam nga bon quartier bi ñu dëkk muy unité 19 école Dior ñaar école lam dafa am CEM am école primaire. école primaire bi ak école CM bi normalement dañoo waroon ubbi depuis mardi moo taxoon ñëw si ñoom ak jàq yi nga xamante ni moo newoon ci quartier bi muy quatre quatre mosquées benn bi nag defoon nañ ko ci euh, ci korité bi yóbbu gel yi yóbbu masque yi foofu eau de javel yi yëpp mais yeneen jàq yi nag muy jàq Imam loo jàq Dakar Marine ak beneen bi jàkk Imam Lo ubbi na moom tey si ngoon den ko yóbbul ay doom quoi jàkk bu ci ubbi rek dañ lay yóbbul sa don yóbbul sa ay gel yóbbul sa ay masque pour ñu def mesure barrière quoi mu nekk lu am am solo Papa woo ko def personnellement wala euh, euh, écurie bi moo ko def nu mu demee noonu wala 100 pour 100 parcelle lan la. waaw lii président bi moo ko def ci doole boppam ci ci turu ASC bi ak ci turu koñ bi ndax dafa woo écurie bi ñu ñëw muy père ba ñu koy euh, ñu koy saluer bu baax a baax geste yi rafet na trop ndax moo na ni xaar nañ dem keti fële nañ défilé nañ défilé mais bon mooy li ñu waxoon ca assemblée générale bi rek dina bëgg ñëw autrement autrement mooy. du ñëw rek pour dundee làmb dañoo ñëw pour dundal làmb ndax boo xewlee booy bëre ji waa quartier bi kenn du am jàmm ñëpp ay jug di dal di dal dal mënoo du kër gu nekk jox ko junni ñaari junni ñetti junni li nga mën rek mooy boo gisee ni daal lii boo ko defee ci mbooloo mi ku ne yëg ci boppam rek nga def ko te moom wax dëgg yàlla mu ngi ci avant ay lii di am ku ko xam bu mu nekkee dinaa jeune ba léegi ci lii la mos a dox social. gis dimbali dimbali xam ne ko baaxee loolu di ko ñaan rek bon li gaa yi di wax rek mbër boppam mbër boppam mbër boppam mais bi pa lañ bu ñu ñëwee wax dëgg yàlla lii lii pour man suñu waxtaan ak suñ ay bibét lu ndaw la pour lu def ñaari école ak ci jàkka yi ñaan yàlla bu déwénee dañuy def geste yu ëpp ndax ñu ngi ay programme bu ñu tàllal boo xamante ne nii leen koy defee nii leen koy defee nii leen koy defee ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu te tal ko fekkee ko te la ñuy yaakaar pour def ko yàlla gën ko di gën a matale di ko fi fekk rek ko loolu am solo mais nag wax dëgg yàlla nag bon bu ñu bëggee def tamit dafa écrit daan def démb ak bëkki démb rek dootul am sens dañoo bëgg ñëw autrement moo xool nañ ko te ci dañuy nekk ci dañuy nekk incha allah rabbi vraiment ñun ñoo ñëwaat rek bopp la ñuy gaañ tax sensible ñëpp ne lii léegi mu jeex nañ toog suñu kër yi dañu respecté euh, mesures barrières yi comprendre nga léegi mu jeex bu jeexee ku nekk da nga nekkaat ci nga nekk incha allah rabbi tax ne gars yi nañ toog seen kër te bañ a bàyyi policiers yi dàqante fii ñu dàqante fee ay musiba lay jur te da ko jar quoi waaw nan tal leneen te bàyyi loolu quoi maa ngi koy ñaan sama mbokku jeunes yëpp nag sunu frères yi sunu doom yi sunu raq yi sunu mag yi sunu nijaay yëpp nañ ko teg ci yoon rek Sénégal sunu Sénégal ñun ñëpp quoi. Hmm? mi ngi mi ngi deseere nànk-nànk rek alhamdulilah la wax quoi ndax gënoon na fi dëgër bu demee ba muy wàññeeku nànk-nànk rek mooy léeg mu jeex incha allah te day jeex léegi léegi incha allah rabbi ku nekk mën defaat sa barrière di wax ne rek nañ gën a euh, defaat mesure barrière yi ñu wax. respecté distance yi sol masque yi euh, jël gel yi comprendre ndax léegi mu jeex fii balaay balaay ñu tëbaski incha allah rabbi leneen lañ dañ koy fàtte sax quoi waaw sax quoi. Euh, mu mu am mu nekk lu am solo mais gis nañu aussi nii bi affaire yi seeree ci biir koor gi aussi gis nañu daaw leen dem salle mais nan nga doon def pour euh, maintenir ce niveau. waaw bon xam nga musculation rek nekkul mooy entraînement aussi ah musculation rek nekkul mooy entraînement ndax mbër entraînement bi ëpp ci moom mooy bëre mooy daaw. mooy loolu yeneen musculation da ngay ñëw dooleeku nag ndax di nga dem beneen jamono xam ne da ngay privilégié musculation beneen jamono nga privilégié leen mais daal entraînement mbër moom surtout ko amul combat mu leen doo bëre jaru nga fi chargé yenn chargé entraînement yi métti yi da ngay sonal sa bopp pour dara saal tëjee maa ab sa suñu benn waaye indi loon nañu àll nañu ay matériel de sport am nañ ci li ñu war a entraîner yëpp wala soxla rek bu tax na léeg nga dem làqatu fu kii wala nga jugee yenn heure yi sax da nga di guddi sax dem entraînement ci plage bi guddi ndax da ngay soxla daw léeg-léeg te mënoo daw ci kër gi bàyyi bu guddi nga yor lekku ndànk entraîné ñëwaat waaw de waaw il faut xam footing tamit boo ko dul def di entraîné acide gastrique day bëri sa sa yaram waaw comprendre nga dañuy léeg-léeg si biir koor gi noonu ci groupe bi dinañ sàcc suñu bopp nag du yoon sax waaye nag am na loo xamante ni rek nekkul lépp lañ mën a am na xamante ni moom dafa am esprit am lettre tey boo dajee Papa Sow yenn heure yi muy daw yi war nga xam ne kii jugul pour daw yi wala jugal pour yàq mais dafa nekk ci liggéeyam war ko def comme ni ko keneen bi defee ni ko yeneen émission comme télévisé defee jug daw acide mooy fin de semaine mu dañ ci yow waaw. ñoo ngi allégé xel jëm si ay làmb ubbiwaat arène ubbiwaat mu mel ni bu logique logique pour logique kon combat daaw yi peut-être la ñu war a njëkk a jox ay date. est-ce que yow am na waxtaan boo waxtaan ak Pape Fall ba mu xam ne sa combat si de euh, nga am ci yaakaar ne war na mën a teel a teel a teel a am déwén bu saison bi. waaw mooy li ñu wax rek xam nga moom tollagun ci wax waxu combat tollagun ci wax waxu combat li ñu tey ji mooy Sénégal dafa nekk ci àdduna sax dafa nekk ci ay jafe-jafe tax na daal bon tamit Pape Fall nit ku raisonnable la nit ku nit nit la ku naturel xëy na bu waree nekk combat bi bu ko waree tëgg mois mois de novembre. wala mi décembre moom da koy def loolu moom ndax mu téye ñu amul amulu ko njëriñ ñu nit ñu di koy téye itam ko njëriñ ndax it jël na xaalisam def ko ci ñu nit jëlee suñu xaalis invité ko si biir ñu ñëpp ñu xaar suñu ay reliquats muy Pape ñaari mbëri xam naa ne moom dana nu mu gën a gaawee rek ko amee temps rek dina ko taxaw incha allah rabi ñu xool leneen. tey jii am na lu gënal Patam nga bëri ban mois. waaw de ça. li ñaari mbër yëpp ndax tey ji bu dee da nga dégg bëri digg saison bi mooy année da léegi day métti ci yow. da war a teel a bëre boo teel a bëre yàlla mën a defaat nga bëriwaat fenn saison. nekk mu nekk euh, euh, lu am am solo par rapport ak euh, combat bi nga xamante ne si nga si nga si nga nekk ah, yow ak Siteu combat bi ndax papa teelut woon pare bi teelul woon pare physiquement. non xamuñu moom chaque jour rek jëfee moom lii suñu métier la. chaque jour ko jëfee rek dañ ciy nekk ama tey ji tey ji defoo dara tëdd di nelaw sa rek tëdd nelaw rek wax dëgg yàlla sa supporter bu la fekk wala sa am di jàmm bu la fekk war ngeen sekk leen kon lu làmb an ki sama nit la ci leneen waaye kon bu sport bu wax ak moom ba tax li suñu métier saa yu xëyee ñu ngi ci suñuy gont ñu ngi ci waaw suñuy xëyee ñu ngi ci suñu gont mais boo amee combat tamit lay defal programme pour nga a pare le jour ji waaw bi nga xamante ne 45 ans la ko gars yi euh, plafonné yow personnellement nan nga gisee waaw man dama gis ni euh, deadline warul am ci sportif at bii ngay bàyyi bëre at bii ngay bàyyi sport amul ci benn sport amul ci benn sport ci àdduna wax dëgg yàlla te bon balaa ñuy pare mooy maanaam il faut ñu bañ a comparer tubaab yi ak ñun tubaab yi à bas âge nga commencé def ay championnat ay douze ans comme ça bu dee mbëru tubaab la ngay gis compétition douze ans day am mbëru tapis yeeg yaay gréco yi lutte olympique bi ñu ko def di ko ko def boo amee trente ans da ngay doyal sëkk. da nga compétir vingt ans xale ba nekk mag booy am trente ans day fekk nga doyal mais ñun dañuy am cinquante ans ñun xam Afrique da ngay am cinquante ans doo commencé sport bu la waxee nga ne <laughs> waaw sa moitié âge ngay indi teg teg di bëre di nga am fraîcheur ba soixante ans da nga am fraîcheur waaw li may wax nag mooy lool ci côté boobu la deadline warul am ci sport sport deadline war ci am waaye nag nit ku nekk war ngaa gore kuy def sport ak âge boo mënti boo bëree ba am 45 ans loo ci amoon du toog amaat nag bu du xalee yàlla rek tax boo passé 30 ans 35 ans am 40 ans dem ba quarante 45 ans munoo réussir si sport xam nga ni sa wërsëg lii nga si lekk moom nga ci war a lekk ci côté boobu mais date moom nga ne nit ki moom da ngay bàyyi bëre ci date bi du respect waaye tamit nit bu eggee 45 ans lu mun amaat ci bëre moom mooy damay uti dépense waaw léegi maanaam sport de combat moom tout moment di xale bu ndaw jël coup am benn damu damu bu ndaw ci loos bi ci nit bi ci côté ñàkk fa bakkanam wala arrêt cardiaque mu ñëw si ñàkk ci bakkanam ñi si dee ñëpp kenn amu ci quarante cinq ans tamit boo war a dee ci euh, ci sport ala kulli da nga ciy dee tamit day mag dana ci dee gone dana ci dee loolu moom dama ko jël teg fële di wax rek ne deadline moom warul am quarante cinq ans da ngay bàyyi bëri moom warul am. mais est-ce que li li li wax est-ce que c'est pas plus dangereux xale bu encaissé coup nu mu ko mën Euh, nu mu ko mën a supporter ak mag bu encaissé coup aussi. coup nag gis nga coup da ngay dégg naan kii dafa liggéey ay tànkam bu jëlee coup du daanu. amul coup bu la dóoree fi la war a dóor da ngay daanu kenn amul kenn mënu am entraînement amul ku ne am naa entraînement encaissé coup da nga ko da la da la dóor fi la war a dóor mais boo koy dóor ci ay bët ay baqen day naaj day mais dafa am bu la fa dóoree coupe circuit day am. contour bu ne pof lépp lëndëm mooy am amul kenn amul ko entraînement amul. entraînement foofu noonu yoo xamante ne ay neer bu ñu entraîné ay neer. ay neeru dajaloo sa bopp bi la bu la si dóoree mu coupe circuit am amul amul boo gis sax boxeur bu ñu commencé kaawoo bu ñu kaawoo benn yoon ñaar ñetti yoon ñeenti yoon rek seen ay kaaw day commencé bari ndax day am trouble fii sport man ma boxeur bu mag moo ma ko wax boxeur bu mag au niveau fekk combat je suis passé ma laaj ko mun ma dafa jëloon ay combat yu muy jël ay kaaw di jugaat di eggal di gagné mooy répercuté si bopp bi ba tax na boo ko dóoree day gaaw a wàcc du caaginu âge déedéet. ay dóor mu daan nekkul ci âge na leen. nekkul ci âge. alors euh, yaa ko wax euh, sànq CNG bi nga xamante ne moom moo diriger làmb ji coow li bari na ñenn ñi naan na dem ñenn ñi naan na toog yow nan nga gisee euh, d'une manière générale coow làmb ji ci g waaw coow làmb ci CNG bon Alioune Sarr tamit ku ne war nga koo ku nekk ci làmb merci Alioune Sarr jërëjëf. ku nekk war nga am jaajëfal mais ku nekk am nga droit tamit ne toog bi fii toog yàgg na ku nekk am nga si droit aussi ah am nga droit ne Alioune yàgg na foo def vingt nangam année yàgg na bu ñëpp xëy na da na bàyyi na bàyyi man su doon maay Alioune Sarr man damay bàyyi mais buy bàyyi tamit ministre bi moo ko war a poussé maa ngi koy wax sànq rek sa waa sa collègue bi ma ne ko ministre moo ko war a organiser benn fête nuit nuit de la lutte bu mag feete ko invité ñu war a ñëw ñëpp ku bëgg a ñëw mu invité la nga ñëw bu ñu paree nag ñu defal ko li américain naan daal euh, nu mu tudd. bu euh, ah, mag. ndax minute am na lu mu liggéey ci làmb ah. am mu liggéey ci làmb mais tamit bon xeex bi tamit xaw na salte te jaru ko. jaru ko non non ko ñun ay nit lañu ñun ñoo fi teg CNG bi ñoo fi teg képp kuy dirigeant ñoo la fi teg mais tamit gars yi il faut ñu xam ne jëlee fi Alioune Sarr nekk mooy defar làmb ji déedéet làmb ji bu ñu defar ko day commencé suñu ay écurie suñu ay écurie fa commencé tey ji euh, xam nga tey ji subventionné nañu euh, club yi football. c' est parce que président dañuy investir seen xaalis war ci génnaat mais président écurie yi fii président écurie yi président yëpp presque presque yëpp boo ci boo ci dul jël benn ñaar ñoo dul ket te président yëpp sa mbër sa mbër day am combat ngay keti fee nangam nangam làmb war a dépassé foofu làmb war a dépassé tey jii euh, paase am combat per ba di keti per warul ket te du ko def sax moom du ko def li war a def mooy dafa ut ay moyens yoo xamante ni du ko ut teg jàppale ko ci lii mbër bi nag bu amee ñeneen ñu muy seeti pour ñu ketal ko ñoo koy ketal mais pas président bi du kete ak président warul kete tey jii suñu amoon suñu meloon nu ñu waroon mel ñun ñun ñun ñun làmb ji dépassé fi. bu ci war bu ci jii bu doon président bi day investir ay millions kon tey jii subvention nañ écurie yi benn président financé wul si ñaar dërëm làmb ji ñooy defar ay nit làmb ji mooy defar ay nit waaw ku bëgg a defar da nga ñëw ci làmb ak ak foo mënti bokk ngay ngay def business ngay commerce ñëw ci làmb ji. deux trois ans quatre ans sa affaire baax nga dem sa yoon. waaw dem sa yoon boobu noonu yow est-ce que rafet na ko ci comme sponsor yi. waaw waaw waaw xam nga mënoo am euh, communication bu gën làmb fii Sénégal mënoo ko am mënoo ko am mais ñuy uti sponsor tamit nañ crédible ñuy uti sponsor yi na nekk ñu crédible tey jii am na nooy bindee sponsor bi dalay dalay jàppale par force. mais tamit xam nga tamit làmb tey nga bëgg ñëw tey promoteur bi nga war a ut euh, da ngay dem booy université génn nañu am seen ay master am seen ay doctorat am seen ay licence jël leen yow kii kii communication lay def jël ko nga dugal ko ci staff bi kii marketing lay def jël ko mu dugal ko ci ne koy am nga ci 2 pour cent am nga ci lii mais nga bëgg a jël lépp yóbbu mënul nekk mënul nekk dañu war a réorganiser waat làmb ji ñu ko réorganiser waat bu bëggee dégg dëgg rek mooy tey jii tey xëj na man dama li ma gis mooy ni ñu bindee moo baaxul wala waaw ni ñuy bindee soit baaxul ilaa tamit yenn yenn sponsor yi bu ñu dawee engagement yi promoteur doon wax ak ñoom matlewuñ ko mbëri tamit engagement bi ñu engagé ak promoteur bi sol ma sama blouson da ko war a sol ñu woola bërëb sàngam da foo war a dem fii benn mbër du rey kenn comme ça ñaar kee dafa ànd ak ay bandé dafa ànd ak ay wëyoog ay ay ay waa lu kenn amul fu la woo demal dëkk bi dëkk lu waa la ku la def naka sudul noonu yoon am na ci dëkk bi Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.